waaw salaamaaleykum bës bi de bésu fàttaliku la bésu ñaan bésu saraxe ak bésu teraanga ndax bu sa wéyjur dëddoo desaloo ko lu dul ñaan surtout wéyjur bu mel ni Alaaji Bassirou Diagne Marim Diop xam te ne lu baax la fi nekkee di dox lu baax di wax lu baax di jubali nit ñi di tinu nit ñi Euh, di dimbali nit ñi ci ci santé di dimbali nit ñi ci sociale bi yóbbu nit ñi màkk teral na ñu bëri may nit ñi ay terrain donc kooku boo génnee àdduna tey ji mu am fukki at ñu ne nañ fi dajaloo famille bi rek defal ko ay kaamil yu nañ fi juróomi kaamil fi toll ñi ngi wàccee 41 yaasin donc daal tey bés bi bërul bésu woon rek ak euh, ak ak saraxe ci loolu daal la nekk. ah situation réew mi fi ñu toll nii moom xam nga réew mi dafa naqare waxee ndax politique bi. moo ëpp doole léegi nit ñi booy wax ci lu baax sax duñ la faale booy wax ci yàlla yonent bi duñ la faale boo ko desee ci internet bi képp ku la dàq saaga kooku moo la ëpp vue moo la moo la ëpp moo la ëpp commentaire booy wax lu baax duñu la faale mais defe naa nag ci comportement nit ñi la ndax nit ki balaa nga koy mën a woo ci lu baax mu wis la day fekk yow nga nekk ci lu baax suñu waajur boobu nag dafa nekkoon ci lu baax moo tax ku mu woowoon ci lu baax da nga doon wisi te nguur gi fi nekk ak opposition bi fi nekk ñoom ñëpp la daan waxam opposition jàddee mu teg la ci yoon bu nguur jàddee mu teg la ci yoon lool nag moo fi manqué parce que ay ay arbitre ñoo amatul bi nag képp ku ko laal rek mënatoo àtte te fi ñu toll bal bi ñëpp paasantoo nañ ko loolu problème mu dëkk bi ñu mel ni moom nag euh, am nañ fi naam sax waaye lii lay wax ci daleen ko dul jaral ndax léegi boo waxee euh, lu jëm ci Macky waa kër Sonko yi opposition bi saaga la nga wax lu jëm ci Sonko waa kër Macky saaga la donc te saaga bi dafa nekk saaga yoo xamante ne dafa yomb ndax ci télé ngay taxaw dekk yor sa commentaire saaga doo moo tax à fin ñu bëri dañu préféré toog jàpp seen ñaam yore seen kurus di ñaan mais wax daal jafe na fi ñu toll nii wax jafe na lool lool lool wax sax génn ba noppi ñu kar la nangam nangam réew daal na waxee fi ñu toll nii. Hmm, xanaa bëgg njaboot rek bëgg njaboot rek ndax moom feebar na sax di soox di dem di tuddal nit ñi feebar na di dem tribunal di di dimbali nit ñi maa ngi fàttaliku dernier intervention dafa xëy. am góor gu ñu jàpp mu woo procureur Ousmane Diagne mënu koo jot boobu mi ngi xalaat la dem waaye mi ngi xalaat bu mu nar a yéegee escalier ndax Ousmane Diagne euh, ngi quatrième étage xaw ma troisième mu jigéen ko jot mu ne nañ ko forcer rek yóbbu ko bi ñu demee escalier presque mi ngi ko quatre étages mi ngi ko yéeg presque trente minutes xam na ne kooku bu tëddee ñu defee rek ko mu demee dafa ne Ousmane Diagne diw ak diw ak jàpp dama bëgg nga defal leen libéré nga libéré ma kii temporaire Ousmane Ndiaye ne ko demal dinaa ko def mu ne ko déedéet bindal këyit gi jox ma sama papa jël këyit gi yóbbu ko ba police brigade port bi ñu leen jàppoon ñu waaye leen kon kooku xam nga ku dem ba feebar tëdd munoo dox jàppoo la xam nga kooku moom defkatu lu baax la woon waaw ba ci bi mu tëddee fii feebar boobu ñu ngi woo Karim Wade chaque jour mu dafa soxla Macky Sall pour wax ko daal réew mi ni mu commencé yéeg beeg wàcc beeg jàppaate nañ ci waxtaan faf nag euh, yaram bi jàpp ko waaye bëggoon daal bëggul woon daal xam naa daal bu fi nekkoon fi réew mi toll nii daal du fi toll ndax xam naa ne bu fi nekkoon dina dem seeti opposition bi seeti pouvoir bi waxtaan ndax fi ñu toll réew mi nag loo ci mënti wax waxtaan rek ko mën a defar sànnante xeer defaru ko taal puna defaru ko lakk oto defaru ko lakk ay bus defaru ko ndax bu doon loolu faju na bu waxtaan rek mën a defar opposition pouvoir autour d'une table te kii di opposition di Sonko kii di pouvoir di Macky Sall donc ñooñu daal la ñu xam ne bu ñuy waxtaanee Khalifa Sall bokk ci waxtaan bi Karim Wade bokk ci waxtaan bi Barthélémy Dias bokk ci waxtaan bi ñu xam ne Sénégal moo ñu ñor mën nañu mën nañu taalante suñu biir waaye à la à la fin ndax koo jam yaa seeti hôpital ko xaañ yaa seeti ko dee yaa koy donc affaire bi benn la Sénégal la ñëpp Sénégal la ñëpp Sénégal la donc waxtaan rek laa gis ne moo ko mën a te bu fi nekkoon defar ko yal na ñu barkeem topp ba ñu xëy ñuy retrouver autour d'une table ñu jëm ci élection yu apaisé élection yu transparent élection nag ku ko tudd tudd coow ndax mook mook élection yoo ànd te réew mi sax daanaka presque dafa commencé am coow te demaguñu élection donc ñu ngi ñaan yàlla daal jàmm am ci réew mi ndax mooy suñu intérêt ndax yàlla nee na ñett du ko sàmmal kenn nee na sa alal yaa koy sàmmal sa bopp sa yaram yaa koy sàmmal sa bopp sa njaboot yaa koy sàmmal sa bopp te loolu mooy àdduna suñu alal mooy Sénégal nañ ko sàmmal suñu bopp ndax kenn gisoo kenn tey sa liaas si sa bi boo ko tegee si mbedd bi boo ko ñàkkee yaatuñ sa bopp li nga gën a bëgg yaa ngi ko denc sa biir armeel yaa ngi ko daan denc armoire ah, tey sa njaboot tey ji bu yar jotee nga yar leen boo leen yarul mbedd bi yar leen dugal leen école jàngal leen alxuraan sa yaram tey jii ñu ne la mën na la yaa koy yaral sa bopp du loola neex lekk du loola neex naan voilà doo jël tey butéel diwlin jollu ko di nga xam ne la ciy fekk doo naan ko kon ñett yooyu di nga ko war a mooy àdduna mooy Sénégal dañ ko sàmmal suñu bopp xam ne kenn duñu ko defaral nañu sàmm suñu alal xam ne kenn mënuñu ko defaral nañu sàmm njaboot gi xam ne kenn mënuñu ko sàmmal njaboot gi nag ci la politique bu bokk ci la lépp bokk kon daal man loolay sama message ñi ngi ñaan yàlla nag ren mooy doon dixième année bi ñu fekkee ko ci rafetu du fekkin ndax dina fekk ñu jàll ci élection yi normalement au mois de mars bu dee am na deuxième tour day tombé ak deuxième tour donc ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm Sénégal yàlla def jàmm ci Afrique ambassadeur turc bi ñëw na fi parce que dañ la ma samay xarit lañu karoog bi euh, tremblement de terre bi amee dama demoon seeti leen tey ñu yónnee ma délégation ñoom tamit ñaanal naa leen leen ci kaamil bi ndax presque perdre nañu cinquante mille personnes te dee bu na a boobu amul ndax ñoom bi bâtiment yi daanoon bu ñëpp dee woon sax mu neex waaye am na ñoo xamante ne am nañu weer di yuuxu ci biir ki ñu fi mujjee génne ne yi presque def na fa 21 jours bu ñu ko génnee mardi taali te am ñoo xam ne leen dégg seen yuuxu dégg seen yuuxu dégg seen yuuxu ba déggatoo leen kon muy dee bu métti ñi ngi fi woon ak jege ñaale yi ah, ak mbokk yi ñëpp a ngi fi woon defe naa après di ngeen ko gis ci image yi tey daal bésu bésu bésu bésu bésu bésu mbégte la ndax boo amee méttit gis say mbokk métti bi day wàññeeku te tey bés bi métti la woon ndax bés bi ñu fàttaliku ci la ñu ñàkkoon ñu papa alaaji Bassirou Diagne Maram Diop tey jii lañ ko tëraloon ci sëwi alaaji Malick yóbbu ko principal jébbal ko boromam bu tombeek nag bésu sëñ Babacar si nga xamante ne moom ci boppam wëllëreem la sëriñam la léppam la et puis moom deewam dafa am génn àddunaam dafa am dafa am dafa am euh, dafa am miracle parce que dafa gént sëñ Babacar si bu ñu ko géntee mu jël si ko mu seet si ko Euh, nekkate jour boobu gént gi di am 40 jours si la paa bi dem kon na leer ne kon jour bu mu ko géntee jour boobu li ko jël si waaw kon moom mook sëñ Babacar lu profond la seen diggante ñoom ñaar te gént gi xam naa ne bés bu si xajee dinaa leen expliquer li mu ko géntaloon ba ni nga xamante ne kon da ko jël si woon